foo nekk. maa fi rek alhamdulilah sant bu yëpp. mbégte gi nga yëg fan la toll. mënuma ko wax sax ma kontaan. <laughs> sama xarit la. léegi fi mu toll nii bi ma jotee appel bi rek. Mhm. li ma yëg sama yaram sax mënuma ko wax. ndeysaan. daal di ànd rek. biñ la kontaan. te ñu ngi sant yàlla rek yàlla na yàlla na. moom suñu te yàlla ma mel ni sama maam Moussa ak sama maam dem ba ay cent macha allah bu ñu génnee àddina. Uh-huh. tamit ba doon sama urul ay na ma ngi noonu. mais looy wax say goro gis nañu yaatal gi nga xam ne yaatal nañ ko nit ñi ah accueil bi macha allah mariage validé. ah maam Ndiaye ak Mbaye Ndiaye Faye moom amu seen amu moom. Mm-hmm. parce que damaa ñëw rek bokk ci famille bi. c'est ça moom Thiané mi. joli maman Fallou mm-hmm. Faye mi nekk ci étage mi fu mu toll nii. Mm-hmm. nag sama xarit. Amath sama partenaire la moom fa la ñu nekk di réunion jàppale na ma si lu bari vraiment am na seen fay. macha allah kontaan ménage lañ merci beaucoup. message ngay wax madame. ah, ah je t'aime waaw je moom loolu moom moo gën a simple. impact c'est le mot impact. mu ngoog mu ngoog. ëpp na merci beaucoup.